Africa. Coronavirus musasa sotoringonsi andin amala nyimukeleti wala nyimumusuleti. Amai sibo nyoto. Mo wili jama fata findu banko kan wala lenyi sasa soto andin ayi fale. Coronavirus man jaral soto. Bari fanan akibar bima a ay penguo soto le. Lamine naka nga gisee Gambia woon ak léegi. ah Gambia nu ma gis Gambia woon ak Gambia léegi dafa overla utee because soo seetee festofol man lu ma si gën a si dëkk bi right now lu nekk mu ngi seer price dafa seer boo jëndee bagage tey bu dee five dalasi nga ko jëndee balaa wan week one nga ñëw ñu ne la ten dalasi loolu dafa overla métti si eh, dundin Gambien si soo seetee nen from eight dalasi ba ten dalasi right now at this moment nu ñoo wax nii nen mu ngi dem ba fifteen dalasis benn nen fifteen dalasis so yow nit ki nga xam ne daf daan deewee twenty dalasi instead of twenty dalasi léegi dafa mel nii fifty dalasi nga leen deewee par day te loolu moom baaxut si nit ñi because soo seetee ñun suñ salari bi eegut foofu noonu gamen salari boo feekuwee boo jëndee saaku maalo nga joxe dépense one week lu si des moom da ngaa dem nga lebaat So yow from uh, uh, uh, suñ la fee suñ la fee da nga dem nga fay sa bor yi balance bu dess nga sa ku malo nga joxé one week dépense nga wat si eh, eh, living ci leb lolu baaxul si dëkk bi government dañu wara dimbalé dimbale bi dañ sona gambien si dañ rawati na nga ñew nga bëgg jëlat benen problème tégaat ko si kaw gambien si moy né di Sénégal issue sénégalais yi dañ wara try gaay yi lañ foñi génnee lañ gaay ñew ci si town bi fi waaw Gambien si bañuñ loolu sudut loolu na ngaa jéene sénégalais sénégalais dellu because sénégalais duñ mun a ñëw Gambia fii nii ñu Gambien yi ubbi leen bunta pour gars dem attaque rebelle yi loolu su amee loolu dafa mel ni comme ñun ñu nge ñu nge dundal li nga xam ne du nekk lu jën si Gambien si so this is not for ñu issu is Gambian issue na ñëpp booloo ñu jóg ñu xeex loolu noonu eh, soldats yi ECOWAS yu gars yi wax ne sookoon ECOWAS because of sookoon e-, ECOWAS This is not ECOWAS. It's Senegal's troop. Senegals, they are here for their self-interest. They are not here for the interest of the Gambians. So we, the Gambians, will not sit and fold our hands. We look at the Senegals, they come and they did what they want in our country. Lo hamne ne ñun Gambians yi duñ mun am fit boobu noonu pour dem def ko Sénégal Sénégalais yi def at this moment si dekabi. Gambian bu ko def Sénégal rek doo doo si do si am ndam doo ree. lan nga foog ne mo waral problem yu neka di o Gambia fi ni re. Problem yu o si Gambia bi man si suma gis si si suma xalaat bu ndaw man government bi laa blame. lu tax government bi. lu tax ma blame government bi. because of problème am na fii. Gambian si ñu complain loolu noonu ñu ne ECOWAS ECOWAS ECOWAS seen boppa ñu jéem a ñu taxaw ñu defend seen boppa ñu ne this is not ECOWAS eh, eh, eh, this is not ECOWAS problem. is Senegal Senegal problem. They said this this agreement is is an agreement signed between Gambia Gambian government and Senegalese government. soo léegi suñ government yi ñoo war a jéena ñu wax Gambian si lu fa nekka Gambian si xam waaye duñ mun a bàyyi Gambian si si lëndëm everyday eh, nit ñi ñu ngee complain nii la fii la fii la soo kenn xamut banay ban waaye si man suma gis-gis lii agreement bi nga xam ne la Sénégal ak Gambian si ñoo agri loolu noonu so loolu moo tax sénégalais yi di ñëw fii di def seen junja sénégalais yi ñoom xam nañ timba si fan la dee jógee ko suñ bëggee stop loolu noonu na duga dugg si yéen Sénégal gaa ñëw laal seen checkpoint yi foofu noonu Casamance ñun Gambia we don't have any problem about it waaye duñ mun Sénégal gaa ñëw ba Gambia fi, ñu bugg fi, ut yooni fii ñu dem fekki robel yi loolu dafa mel kon ñun Gambiens yi ñun ñoo nekk di dooleel Sénégal yi ñu ne leen dem leen ngeen dem xee te loolu su ame, loolu baaxut si ñun dëkk bi because of suñ dégluwee Salif Sadio si xel la wax de nañ ko déglu Salif Sadio mu wax dafa Jawara mu ngi yoon fii kenn musta dégg Casamance rebelle ak Gambien si am nañ problème ya Jammeh ñëw na fii kenn musta dégg eh, eh, rebelle yi eh, ak Gambien si am nañ problème Baro ñëw less than five years six years yi di am kon loolu am na lu ñuul si soow mi lu ñuul si soow mi loolu noonu loolu lañ bëgg ñu seppi ko ba mu ñu jéene ko nale sénégalais ñu bàyyi suñu dëkka ñu am suñu jaama bu ndaw bu ñu am ñu continuer si loolu. lan nga foog ne loolu lañ war a def pour ñu mën a solve problème yu nekk di xew fi. lu ñu war a mun a def pour ñu solve problème yooyu noonu loolu soo seetee is very easy because yoo seetal eh, baro nit ñi jéem ne ñu ne na Sénégal yi jógee foofu mu ne leen nañ ko may eh, eh, nañ ko may tuuti mu am lu moo setul moom lu moo setul soo moom dafa mel ni kon problème yu am nii sénégalais li ñoo def nii moom moom is well alert te xam na loolu noonu dafa mel ni kon moom dafa apprécier si loolu dafa mel ni moom. moom eh, fonkut Gambien si man si man su suma gis-gis because bu don president bu fonkat dekam, nonsense bi su amé one mu ama two da nga am pour jena nga condemn lo non because gis nañ fi harna jata nuñ ko ré ba léegi Gambien si wax eh, report bi mo fa jena si mbiri haruna bi understand nga nga ñew tamit Gambien boobu non ku gaay fetaloon eh, boori fii nii nu mu tuddaat boori Basse after gay ñew tie ko noonu yóbbu ko senegal gay dem li la ko nit ki mu ngi am injury. waaye nga handcuff ko yóbbu ko ak xale boobu noonu ku gaay téyoon si géej bi yu bëree bëri soo ñoom sénégalais yi ñoom are they here for the Gambian uh, for the Gambians or are they here for so loolu se big question fo the president eh, président ma xam ne tamit nañ jéem a ñu wan nit ñi ne sénégalais ñu ngi fii pour Timbers yi ndax ñu fii pour gam eh, eh, dëkk bi. naka nga gisee government Gambia ni ndax foog nga ne gars yi ñu ngi liggéey nu ñu war a liggéey. The worst, the worst government is so far in the Gambia, the worst, the corrupt government so far in the Gambia is Adama Barrow and his administration. Because of Lutam Mawalononu, yow nit ñi votal nañ la votal nañ la léegi def nga sa cérémonie ba pare da nga suwaya ba pare léegi it's time pour nga jóg nga liggéey waaye yow mun loo liggéey nga ne yow caretaker government nga am eh caretaker cabinet what is the meaning of caretaker eh, cabinet we the Gambians we don't need caretaker government ñun dañ ni dañ ni eh, eh, lifin bi nga xam ne cabinet bi nga xam ne ñoom they are they are they are here for the Gambians not for their self interest so yaa understand soo seetee eh, cabinet bu fa nekk right now ñoom ñoo fi gën a bëri corruption ñoo fi gën a bëri njum jaañ waaye ba léegi loolu kenn nekkul di wax loolu noonu because soo gisee baro mu ragal pour jéene ñeneen yi mu jox ñeneen yi chance people like Fabakary and the others ñoom yëpp nit ñi xam ne naka lañ ñëwee ñoom place moo leen fa itee ñoom ñëwuñ pour Gambia seen self interest lañ gis understand nga ñoom docteur Ismaël Cissé kooku moo jënaa ruslu Gambia bi sax kooku ak wax yu métti yu mu doon wax ba mu oote fii dibéet fii la jéenee Gambien si Gambien si nañ ubbi suñ bóot nañ ubbi suñ bóot ñu xam ku ñoo jox suñ carte yi lu ma am pour wax Gambien si député élection baa ngee ñëw député élection baa ngee ñëw nañ ubbi suñ bóot yi ñu xam député yu ñoo jox suñ carte yi ñu dem toogal ñu si national assembly bi man man man man man right now man suma décision bu ma jël man seetu ma ne kii suma mbokk la kii suma liile la kii man a moom ñoo bokk a parti man independent candidate sax su ñëwee ma xam ne kii dafaa ñëw pour liggéey man suma karta independent candidate laa koy jox ku ma doy laa koy jox ki nga xam ne man daf ma leer ne kii ñëw pour interest dafa ñëw pour interest yi dëkk bi moom laay jox suma karta dis moment loolu mooy loolu is my stand waaye government bi baro na try mu select cabinet bi moo jën dinaa ni Gambian si ne caretaker government caretaker eh, cabinet we don't need caretaker cabinet we need a cabinet boo xam ne dina liggéeyal Gambian si liggéeyal li entire nation bi ni ñuy gis ñu kontaan si waaye fu mu ne nii béykat yi ñu ngi complain because tey tey tey ñu ngi wan ne comme seen gerte yi ba léegi mënuñ koo jënda xaalis bi ñëw na waaye fay nañ yeneen bor yi US yi mënuñ koo lifin soo loolu loolu yan façon wax la ana xaalis boobu noonu bu ñëwoon fii bu gaay waxoon ne jëna yi sax dañoo yëg ne xaalis moo wàcca si dëkk bi kon ana xaalis yooyu noonu Gambia fii lu lu jëna am lii work for your pocket you don't work for the interest of the people of the Gambia work for your pocket moo work for your pocket moo fi nekka dégguloo maa ngi wàññi ne man korekuma man man man du ma korek de man su ma korekute kon baro moo jëkk am ñoom ñu ñoo wax ni they are so con Gambia. they don't like Gambia they they are there for their interest because of ñooñu wa time bu gaay doon dem politique every day 300 lañ leen dee jox every day lu may wax xam naa ko boo tegee kaamil ma waat 300 lañ leen dee jox pour gaay dem campagne understand nga man du ma wax waxi fen ku ma xam xam xamañ ma si fen fii laajteel ñu ñu ma xam man nit ki luy dëgg bi loolu laay wax man faruma fen man farafeña laa man fu ma gis dëgg bi foofu laay wax understand nga man am not here for somebody man ah du ma du ma du ma du ma tufli suma eh, eh, eh, tufli ma ma wonaat ko man du ma façon doomi aadama yooyu noonu moom mii wax noonu man xam naa ko bu baax mii wax noonu kuy agence man xam naa ko bu baax man ah, moom nga teg kaamil man dinaa laal kaamil du ko laal so nit ki nañ wax lu luy defar deka bi waye buñ seet ne for the interest of bena person because of yow dam fa dee am sa sa njëgi dépense loolu loolu wax bob nonu man bañ naa ko ah jërëjëf bro kàddu yi rafet nañ torb ah wax na ay wax yo xamantene ah dañ nekk solo tamit ah te foog nare government bi ñom suñ nekkee di sétane ni suñ dégluyé ak doomi Gambien yi mun nañoo jël si am yi ñu jël ko si jamaré gambien Gambia mun dem si kanam